nuyoo jigéen ñi nekk ci salle bi parce que nag bu ñuy wax économie sociale et solidaire yaakaar naa ne jigéen ñi ñoo tax surtout jigéenu Dakar jigéenu senegal économie sociale et solidaire ñun dañ ko am lu yàgg boobu ñii di ko promouvoir tey xamuñ ko woon ndax lépp loo xam ne tontine la natt la dimbalante la ci xew yi boo ko seetee loolu mooy économie sociale et solidaire parce que nga am sa xew sa ay morom sa ay natangu jigen ñew jàppale la léegi léegi sax dana fekk do yoré deureum waye lañuy dajalé dajale ko jox dana tax ba nga dafar sa xew ba mu baax kon ñun économie solidaire et sociale ñun ñoko wara jangalé ci adina bi motax biñu bi Dakar ndax Dakar da fa yóbbu dossier bo xamné ne kenn mënu ci won wax dara ñu xol li nekk ci boor dossier bi ñu xamné ñi kat ñoñu gëna xam luy économie sociale et solidaire ñu ne ñii daal danañ leen jàppale ba ñu gañe vraiment ñuy sant ñëpp nag ñi ci jàpp ñëpp parce que nag suñu naataangoo yi ay Bamako Ouagadougou ah, ak dëkk yu bari ak surtout dëkk bi nekk Tunisie ñu koy wax suus nga xamoon ne candidat la waaye ba mu demee ba xool ne kat Sénégal li ñu ci xam dakaar li mu ci liggéey mënuma ko xëccoo ak moom dafa retirer candidature am bàyyi dakaar mu dem kon nag loolu mooy wane ne liggéey bi ñuy def ñëpp reconnaître nañ ko ci àddina bi yëpp lii fi nar a xew nag en 2023 ah ay gan lañu ñu nar a am Sénégal nag du ñu ne guléet ci loolu ndax organiser woon nañ fi Africité mu nekkoon succès bu rëy ñi ngi fiy organiser waat bu soobee yàlla JOJ yi 2026 te loolu ñun ñii ville de Dakar ñoo porté woon candidature bi ba gañe ko ñu porté waat candidature bi wax dëgg yàlla ñëpp jàppale ñu ci nag ñëpp dama koy wax nag ñëpp ñu ci jàppale ca commencé président la république ministère yi mu bindoon yëpp ne leen jàppale leen mairie Dakar ci lii muy def ñoom ñëpp ñu jàpp ci madame Zahra Iyane Thiam itam vraiment bi ñuy teg la plateforme de des acteurs ñëw na présider ko ànd ak ñun ba ñu defal suñu travaux yëpp. kon ñoñu ñep il faut ñu sant leen gërëm leen sant itam jigeen ñi nga xamne wax deug yalla sa yu ñu leen oyé ñu ñew uyu si ñu ak ñun and ak madame Aminta Samb Aminta jog Samb dama koy wax diko waxat liggey na liggey bo xamne ne yep bu ko ville de Dakar amé tay liggeyam mom ak équipe am bi nek fa dem and ak malik job and ak rasset ñoo tax li tay succès bi ñu am nga xamne succès mondial la yalla ñu ci lafal ci gannaaw yàlla ñoom ñoo tax ñu am ko kon nag maa ngi di gërëm nyep. di leen wax ne ñu jublu tey la ñu war a préparation 2023 de sori na waaye sorewul kon am succès ba bëgg am yëkkati suñu réew wane ñun suñu réew réewu teranga la suñu réew réewu ndimbalante la nañu jublu ci liggéey bi léegi fii ak ñaari at bu soobee yàlla buñ ko tal ko ah ñu a accueillir àddina bi yëpp fii ci dakaar yàlla na ko yàlla def yàlla nañ ko fekkee ak jàmm maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen